Uh. mama, maman. nga toog nag xaar ma tuuti ba ma pare. ah yow tey seen kër gi daa weddi. ana nit ñi. xam dama la fàttee nettali. ginnaaw coowal dokkoor gi yoro bi ba léegi. yoro xam nga kenn nattu ko mu songu max. max mi maa la ko wax max sa jàpp ba ci kaw. nit ko réel ci suuf xolal wekki ñaari bëñam. eh déedéet man mënu maa gëm loolu. <laughs> wër na yàlla max sa wekki ñaari bëñam. yow mi paa bu dem ba jeexal looy songee xale boo xam ne mi ngi soog a door. moo tooñ boppam. max sa wekki ñaari bëñam sànni na le. <laughs> ginaaw gi jël ma ma ne déew déggoo ma xanaa. boo xoolee yorakaay di nga xam li ma la wax. la illa. baax na ci moom mel na noonu. ah soo max bi mu jantalee yow. <coughs> yow may ma mag sa bu ma ko mayoon nga jël ko kat. man mi dimbale ma. yow eh, ma ko waxaat waaw wuy ma waaj a jeex. ma lay laaj noo tëjee sa saison nga lànk ne doo ma ko wax sa saison noo ko tëjee. doo ko dégg noo koy tëjee. doo ko dégg yow mii ma la ko wax yow. Ah, ah ku jiite. Ah, ah. yaram bi. man feebaruma de. ah ah damaa defe ne moom corona dafa ñëwaat si réew mi encore. lan hmm. moo fi jar li. Hmm? corona amaat. non du corona de. ah lan moo tax nga takk masque. lex bi moo jóg quoi. Ah, wax nga dégg wax nga dégg wax nga dégg. jóg sama xeex bi. ko. oh oh, oh si seen xeex bi maa ngi masque la ñëwaale. Oh. lan mooy def noonu ba nga xool ba jël coup bi. ah non coup perdu la quoi. po po po coup perdu la. noonu la yàlla yàlla loolu la dogal ci man quoi. parce que oh. bi ñu commencé xeex ni man dama laaw quoi. mu wàcc. waaw mu wàcc jël ma ci suuf quoi léegi man balaa may comprendre ci laa daanu. après mu dugal ay huit crochet quoi. huit coups sa conscience baax na nga nekk di compte noonu benn ñaari ba mu nekk witti. Hmm? sa conscience baax na de. bon war na ko ëpp parce que jàppuma hmm. dóori waaye xam war na mat ay huit coups yooyu. xam nga soo. kenn du si dekkee. Hmm? da nga am victoire nga am défaite man am na lu ma la waxoon da nga ma yéene woon suma ba bi damm lu ma lekk yàpp ko non léegi non yow yaa lekk yàpp. non ah. yéene wu ma la sama dignité laay bañ ko offensé quoi. Ah, léegi noonu sa dignité offensé wuñ ko sa deux daaw deñ loolu nekkul dignité bu offensé ñu nokku si suuf. dogal yàlla la. am na lu ma la waxoon Poutine amul solo jikko Poutine bi nga yoroon amul solo jël nga defeti man affaire xeex bu ma si ñëwaat. léegi noonu kër gi mu ngi nii sa décision du laay déglu la nga bëgg da ngay continuer waati Poutine bi kaa ko xoon na. ana maman dama bëgg mu toggal mu ruy. ah fan yii kay semaine bi ruy fonde alaaka. Hmm, après nag nga dem si dentiste bi nga xool ndax di nga am ñaari ñaari bëri. dafa tojaale. signe ceeb rek. ah kuu bi yoon ah, yow lii nga tàkk lii eh, eh, bi nu mu tudd. waaye bàyyi naa ko yàlla booy bi li mu ma toroxalee jël ma ma laaw mu waaf jël sama tànk yi si nga laawaatee suba tey mu waafaati defaat mu gën a bon tu booy bi nan mu tudd max la max du nan mu tudd kan lii tudd site dafa dàggee booy bi max mu tudd li max lii mu tudd waaw bul offensé quoi awa max max na dama feebar naa waaye damay saaga sa ndey. Eh, man loo fi mu toll nii baal naa la. mas mu ngi nekkee fi. Balla Gaye bu dee kii moo nekkee mas. yàlla laa ko bàyyi. Eh, booy bi ah bàyyi yow booy yàlla laa ko bàyyi yow bàyyi woo ah, yow bàyyi yàlla. di ma jël di ma jël. dina la jël jël ma jël nga man jël nga mbaay jël nga séeréer ba yow bàyyi woo kenn kon nag bàyyi jeex na léegi. Ẹ máa La, kó ti tẹ pa. Lápè. La Lápè sè máa. Lápè. Lápè La máa. Mu no hee. Lápè La máa. Fi mu toll nii man ayoo bu jàkkaarloo mu naa la ñuusu léegi nag dóoraati léegi bi su laay def. Soo mun laa ne ma saaga sa ndey. jooyu. Boy bi la jooy. Da ngay jooy. Naa ko yàlla. Ma sooyooye. Ya, ya. Ma sooyooye. Ya, Max. Nokku naa la nga takk masque. Pambare.

va. déet bul toog ci suuf jëlal jëlal ban bi yor. amul problème. ay yow yoro kii rey na la di. waaye yoro kii nii la def léegi da takk masque. non ay yoro yoro lii lu ko fi jar tamit nag yoro yoro nga mën la lii amul sens yoro. non. xeex la ma xool sa masque bi kii ray na di. onze billaay tenkete tenkete kombaale rek quoi. yow yoro kii yóbbu na sa bëñ yi de. Hmm? kii yóbbu na sa bëñ yi xeex moo mel noonu da nga si am victoire wala nga am défaite quoi. moo tax amul njariñ nag yoro ah xoolal li nga def nii xoolal sa lex bi nii nga yaa ngi ne da ko lok fii beñe. ah déedéet. tuñ bi moo néew non lii du tuñ tuñ baa ngi nii lii bëñ yi la bëñ yee de. da dem dentiste. yow may naan xobu mango. xobu mango lan doo dem dentiste ñu xoolal la sa kii bi yoro ay yoro bàyyil xeex yoro lii lu fi jar léegi. Ah? non erreur laa def si combat bi dama def erreur. erreur ba. dama laaw quoi. bi ma laawee moom dafa sëgg jël ma si suuf loolu moo def. Oh. différence daf laa kat si.

su me désole vraiment vraiment lii moom yéenewuma la ko ah. bàyyi naa ko ak yàlla ko. non boo ah, ah, ko bàyyiwul yàlla amul leneen koo koy bàyyi fi mu ne yàllaa fi nekke di bul jooy de eh. yoro dimbale ma man ay jooyu mag xaju ma ci. non non de waa déedéet xoolal fee. mais non non bul jooy rek. non non parce que yaa ngi bët yaa ngi xonk nii tamit yaa ngi bëgg a jooy. sama kol laay wa rek mais ma kol laay waxee rek. kol moo sama kol dama xam ni li mu ma def. li ma def nii métti na métti na. bàyyi naa ko si loxo yàlla. waaw waaw bàyyi naa ko yaa yow kay yaa ngi jooy yoro fi mu ne sa nopp yi sax da cee génnaale fi mu ne ndax masque bi man kay waay yoro ba li day jooy yoro nag man ay jooy yu mag xajuma ci dimbali ma rek waaw ah, maama foofu dama koy soxla bu ci kanamee de mbaay fii laay laal sama lefe na nga def waaw fi mbaay waaw damay laal foofu dama koy soxla bu ci kanam waaw balaa ngay ñëw ñu jug ma ne bu ci kanamee daa koy soxla waaw incha allah damaa doxee naaj incha allah waaw incha allah dinañ jug waaw xoolal lii baaxul yaa ngi jooy sa noon yi di ñëw di la fi fekk fonkal sa ronko ñi te nga jug yow tamit doon ah. noonu waa ah, déedéet déedéet dama bëgg su fekkee mun nga ma toggal mu xam sax quoi mu xam sax waaw wala ruuj ma ko mën a yëy dama koy warax rek quoi ah, yii bi de dama am problème daan daan sàkk mi si côté mm-hmm. bi crochet bi si bëñ bi dafa dugg ci lex bi quoi eh, yoro ma sax dafa bi léegi foofu dafa am néeg quoi néeg ci lex waaw néeg Eh, dafa si créé néegu bojj. ak eh, kon te salon ba war naa rëy ak ah, na yàlla waa jugal dem balaa ñi di la fi fekk na ngay jooy jugal jàppal dégg nga du courage du courage. ay eh, naa ko si loxo yàlla mhm. mbaay du nii nag. jógal may ñu. dama sonn. waaw doon may sax ñu jógee sama coulisse la ah déedéet da ngay tooñ. maman yaa ngi bëgg a tànn da ngay tooñ sama coulisse la. eh jógal nga jaxel ay ya wuy ma kaay jël sa ceeb yi agriculture yi sa bës. wax dëgg yàlla da ngay tooñ yow nag da nga am mën a tooñ. da ngay tooñ ah non non. moom sama toogu kaay yoo xam ne da ngay tooñ. non non waaye da ngay tooñ kii bu ko dimbali waaye yow bu ko conseil. ah mbaay bul wax loolu yow bu ko ko rek mu dese ak ay coonaam yi yaay buguma tok sax ma bëgg a créer ay tension yaa ma jaaxal yaa ma yaa koy jaaxal yaakaar ma yaa ma jaaxal ñaw ñaw fashé merde jërëjëf Max Black